boobee stade bi commencé naa fees dell ngeen gis image yooyu nga xam ne El Hadj Malick ñi mu àndal ñoo ko filmé supporters yi def na nu mu fan si club Sadio Mané tamit kenn desul ginnaaw ñu des ngeen gis leen noonu daanaka mbégte mi nga xam ne ànd nañ ko ba ci tubaab yi nga xam ne sax wane nañ seen cofeet ci li nga xam ni ah, mooy bile réew di Sénégal mu nekk Sénégal goo xam ne tey stade bi foo sànni mbàtt mu toj ci biir ak ci biti nga xam ne fi mu toll nii daanaka lépp a ngi tolloo tubaab yaa ngoog ngeen gis leen daanaka ñu defum diiraan ñëw ci li nga xam ni mooy presque maire stade d'Afrique gis ngeen xong nopp yi daanaka danañ leen ci defal vidéo spéciale ndax am na wax ju bari yoo xam ne def nañ ko ñu nga dëkk si ñaar lay expliqué noonu ci Aladji Malick TV am mbégte tamit génn ci télé bu mag bi nga xam ne mooy Aladji Malick TV tubaab yaa ngoog di kenkengi mel ni ay doomu Sénégal dëkk fii nag daanaka bokkandoog waa dëkk bi di dóorandoo ndax seen teranga fi la ne moo tax ñu ànd ak Sénégal nag topp ko fii nga xam ni moo nekk stade maître Abdoulaye Wade histoire dana bindu loolee mu nekk loo xam ne lu am solo la kon ci kanam yeneen vidéo ci Aladji Malick TV jërë ngeen jëf